maa ngi leen di nuyu. nee maa ngi leen di nuyu. di leen ziar. nee di leen ziar. di leen balu ak. nee di te di leen ko baal. te di leen ko di leen jéggalu. nee te di leen jéggalu. coono bii. nee coono bii. ndax lii. nee ndax lii. rëy na ci ñun lool. nee rëy na ci ñun lool. ñun ñi bokk ak maître Xaasim. nee ñun ñi bokk ak maître Xaasim. benn ndey. nee benn ndey. tey jii nee tey jii lan mas a am ci moom nee tey la ñu mas a am ci moom xol buy ñur ñuri nee xol buy ñur ñuri waaye bi nu déggee waxi sëñ Moussa waaye bi ñu déggee waxi sëñ Moussa sunu xol daa sedd guy nee sunu xol sedd na guy ndax nee ndax. la mu wax. nee la mu wax. dégg nañ ko. nee ñun dégg nañu ko. dégg nañ ko xol itam. nee dégg nañ ko xol itam. kon. nee kon. noo ngi ñaan yàlla. nee ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala. sëñ Moussa mii. nee sëñ Moussa Nawel mii. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. nee yàlla na ko fi yàlla bàyyi. ndax. nee ndax. ay waxam. nee ay waxam. mat na sëkk. nee mat na sëkk. jëfam. nee jëfam. mat na sëkk. nee mat na sëkk. nun mbokki sëñ Xaasim nag. nee ñun nag mbokki maître Xaasim Touré. xanaa dañuy. continuer. ne xanaa dañuy continuer. fas yéene yeggalem liggéeyam ne fas yéene yeggale ab liggéeyam. képp ku mu seqaloon. nee ndax képp ku mu seqaloon. fas na di yéene. nee fas na ni yéene. kóllëre ga nga amoon na moom nee kóllëre amoon ak moom. daanu ko mottali. nee daanu ko mottali. bu soobee yàlla. nee bu soobee yàlla. waaye moom nag. nee waaye moom nag. dadaa wax ne. nee dafa daan wax ne. mooy avocat sëñ Touba. nee dafa daan wax ne mooy avocat sëriñ Touba. loolee nag. nee loolu nag. jëfe na ko. nee jëfe na ko. waxe na ko. nee waxe na ko. defe na ko. nee defe na ah, mbay mii nag. nee mbay waalo mii nag. ñun njabootu soxna Bintu de. nee ñun njabootu soxna Bintu. ameel nañ ko jukkal. nee ameel nañ ko njukkal. jàppoon naa ko de. nee jàppoon naa ko de. waaye tey jii. waaye tey jii. gën naa ko jàpp. nee gën naa koo jàpp. barke Serigne Touba. nee barke Serigne Touba te lii may wax. nee te lii may wax. nee ci sama xol laa ko. yàlla ak Serigne Touba xam na ko. nee yàlla ak Serigne Touba xam nañ ko. Cheikh Ahmadou Bamba mii nag. nee Cheikh Ahmadou Bamba mii. maa ngi leen di ñaan. nee maa ngi leen di ñaan. ngeen ñaanalal ba ko. nee Cheikh Ahmadou Bamba mu maître Xaasim ture mi toog maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanalal ma ko wax na dëgg ndax fa tabaarakallaahu maître bari lewu ko mu jël ko tuddee ko maam Cheikh Ahmad Bamba waaye yaakaar naa ni la moom def na ko wan na ko yoonu Serigne Touba wi. nee xaasim. nekk na nit ku baax. nee nekk na nit ku baax. nit ku nee nekk na nit ku véridique. nit koo xam ne soo ko comprendre mënoo nekk. nee nit koo xam ne soo ko comprendre doo mën a nekk ak moom. waaye xaasim nekk na nit ku woyof. chaque jour. nee du romb benn bis nee te du jaar ci sama bureau passé ko ak man. fa nee sama bureau fa lay añee. fa lay noppaliko nee sama bureau fa lay ko. nee man damay génn sama bureau sax wacc ko ak moom. ba ay 3 nee ba 3h30 wala 16h ma dellu si. nee ni ko mettre pause bi jeex na nag. nee fokk ñu liggéey. nee mu ne ma ah maître Sakho dag may dàq sa bureau. nee kon daal di man daal ni ko kon maa ngi dem sama bureau. nee Serigne mooy sagul l'islam bi. nee di sagu yoon wi. nee di sagu borom der nee ni nee noonu la Serigne Mountakha. tey singale der bu ñuul. mais ñoo ngi ziar nag bu baax Serigne Moussa Nawel. mais Serigne Moussa taalibe yëpp la bëgg. mais li tax ñu bëgg la. mais sa dëggu. mais sa taxawaay. nee di sama xarit. sama lépp nee di sama lépp. nee di sëñ Ibrahima Mbacke. nee di nuyu sëñ Ibrahima Mbacke. maa ngi leen nuyu ci turu sëñ Muntaxa. di jottali am njaalam. di jottali am njaalam. di wax ne moom it mi ngi leen nangul seenum njaal. di wax ne moom it mi ngi leen nangul seenum njaal. yàlla dafa def. yàlla dafa def. Alaaji Cheikh Touré. Alaaji Cheikh Touré. dafa yàgg ak sëñ Basiiru lool. ak njabootam yëpp itam. ak njabootam yëpp itam. sëñ Basiru kër sëñ Basiru lañu lañu gimmee. kër sëñ Basiru lañu gimmee. yàlla jub yàlla jubal ñëpp. yàlla jubal ñëpp. ñu sant ko yàlla. ñu sant ko yàlla. li ko tàmbalee ci fallu. li ko tàmbalee ci fallu. Babacar. Babacar. ak Moustapha. ak Moustapha. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. cig jub laa leen xam. cig jub laa leen xam. loolu maa ngi koy sant yàlla. loolu nag maa ngi koy sant yàlla. ndax samay rakk la ndax samay rakk la ñu. bokk bokk yi fi teew nag. bokk yi fi teew nag. nañu seere ne. nañu seere mi fi bàyyi xaa xaasim mi fi bàyyi koo. sëñ Moussa Bassirou la ko baayam joxoon. la ko baayam joxoon. mu jébbalu ci moom. mu ànd ak sëñ mu ànd liggéey ba. liggéey ba. bi sëñ Moustapha yéegee. bi yéegee. mu ànd ak nijaayam Baye Bass Touré. mu ànd ak nijaayam Baye Bass Touré. andi ko mu ñëw lu ci man. andi ko mu ñëw yeeslu ci man. boobu ak tey. boobu ak tey. noo ngi ànd liggéey bi. noo ngi ànd liggéey bi. ba yàlla dogal na. ba yàlla dogal na. bi bi gën a bëgg. bi taalibe gi gën a bëgg. muy dee ci ndigal. muy dee ci ndigal. yàlla may na ko loolu. yàlla may na ko loolu. bi fi ñëwee ay bis gële. bi mu fi ñëwee ay bis gële. fekk muy waaj. fekk muy waaj. dama wax sëñ bi na ko. damaa ñaar mooy mën a am. ñaar mooy mën a am. jëli ko mu toog. jëli ko mu toog. wala woyofal ko mu dem. wala woyofal ko mu dem. loo ci bëgg ñu def loola. loo moo tànn lii. moom moo tànn lii. kon. kon. ci ndigal la demee. ci ndigal la demee. lu mu rëy rëy. lu mu rëy rëy. dee day am. dee day am. waaye dee gañ la tànnal nag. waaye dee gañ la tànnal nag. moo gën a wóor. moo gën a wóor. te néew nañu ko am. te néew nañu ko am. te yàlla yàlla jox na ko ko moom. te yàlla jox na ko ko moom. fee mu dem tey. fee mu dem tey. ndigal moo ko fa yóbbu. ndigal moo ko fa yóbbu. ne mënoon naa toog ba ci kanam. ba ci kanam. seq nañ ko ay yoon. seq nañ ko ay yoon. yàlla def ci sutura. yàlla def ci sutura. tey jii nag. tey jii nag. dama ko wax Sëñ Tuubaa ci boppam. dama ko wax Sëñ ci boppam. mu tontu ma lii. mu tontu ma lii. defe ko nii. defe ko nii. kon yéen ñi nga xam ne. kon yéen ñi nga xam ne. yéenay ay bokkam. yéenay ay bokkam. muy Baye Moustapha mii. muy mii. di Fallou Touré. di Fallou Touré. ak i rakkam. ak i ñëpp. na ma seqe woon moom. na ma seqe woon ak moom. incha allah day yokku. incha allah day yokku. waaye dara du ci dellu ginnaaw. waaye dara du ci dellu ginnaaw. Cheikh Bamba mi nga xam ne. Cheikh bàmba mi nga xam ne. moom la ko yàlla jox ci doom. moom la ko yàlla jox ci doom. suñu borom. ñaan suñu borom. mu dund dund gu am njëriñ. mu dund dund gu am njariñ amal ko ay bokki baayam. amal ko ay bokki baayam. waaye amal njëriñ baayam ca fa mu nekk. waaye amal njëriñ baayam ca fa mu nekk. rafet naa ci njort itam nag. rafet naa ci njort itam kon mboolem koo xam ne. kon mboolem koo xam ne. maître Xaasim moo moo la indi woon ci man. maître Xaasim moo la muy simeer mii. muy simeer mii. muy Momar Jongo. muy Momar Jongo. Ndonga Jaw. muy Ndonga Jaw. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. moo leen indi ci man. Xaasim moo leen indi ci man. liggéey sëñ ñoom maa ngi leen koy jaal. ñoom maa leen koy jaal. di nangu seenum jaal. kon mbokk yi fi teew yëpp. kon mbokk yi fi teew yëpp. sant nañ ñëpp. sant nañ ñëpp. gërëm ñëpp. gërëm ñëpp. maa ngi ñaan yàlla. maa ngi ñaan yàlla. mu jéggal ñëpp. mu jéggal ñëpp. yërëm ñëpp. yërëm ñëpp. musal ñëpp. musal ñëpp. jërë ngeen jëf.